fii Ziguinchor organisé li ñuy wax 72 heures de l'auto-école loolu moo waral moniteurs yi jógee Sénégal fépp ci Sénégal ñëw suñu mbokki Louga yeeg Ndar yeeg Dakar ñu ñëw fii uniquement pour organiser 72 heures de l'auto-école. lu ñu ci jublu nag mooy lu yomb ak lu simple. mooy sensibiliser population bi nga xam ne usagers yi nga xam ne ñoo ngi ci kaw tali yeeg yëpp wax leen ni naka lu ñu war a respecter code de route wax leen ni dañoo war a respecter code de la route wax leen naka lu ñu mën a def ba xeex insécurité routière mu jógee fi ba sécurité routière bu ñu bëgg dëgg dëgg fii suñu réew ci Sénégal gi ñu mën ko dëgëral loolu nag lu ñu ci jublu loolu nag lu ko mën a amee mooy woo leen comme ni ñu ko gisee tey sensibiliser leen waxtaan ak ñoom naka lu ñu war a respecter code de la route loolu moo ñu dajale fii tey lu ñu leen di wax rek du dara muy ni ñuy respecter code de la route parce que code de la route bés boo ko respecté rek doo mës juum mi ngi mel ne xale bu respecté waajuram rek waajuram mu nekk fi ak mu ñàkk fi nekk yëpp da koy day joxe cër donc ni code de la route boo ko respecté uniquement doo juum mais convoi yi dafa métti métti bi ñoo ko teg suñu bopp parce que benn instant du ñuy excité wu benn instant du ñuy wone wu benn instant du ñuy défoulé wu sax ci kaw ful yi da ciy gis kenn koo xam ne day yor oto boo xam ne nit ñi ñoo ngi nii à zéro mu bëgg accéléré da nga ciy gis lu gën garaaw tey da ngay si convoi nit day téye embrayage am def premier ba pare di accéléré oto bi accéléré koñe embrayage bi à tout instant mën na la rëcc su la rëccee day daw ci kaw nit ñi mais lu ñu conseil foofu mooy ñu teey ànd ak yar ànd ak teggin ñu respecté code de la route tout simplement toujours. accident yi lu koy indi non bu ñu wax Jakarta bu ñu wax camion bu ñu wax particulier du ñu wax dans le cadre général parce que du ñu wax sécurité routière c'est l'affaire de tous moo tax ñu ni la sànq yaa ngi ma koy laaj même suñu maam bi nga xam ne mi ngi ci kaw tali bi di jaay gerte caaf wala kii di jaay beñe wala kii di jaay ndox sax ci sécurité routière la bokk ñu tey ñun du ñuy wàcc ba ci kaw tali ak ñoom ñoo ngi waxtaan ak Jakarta yi ñoo ngi waxtaan ak ñëpp donc ni ñëpp lu ñuy waxtaanee ak ñoom yàlla na yàlla def ñu dégg ko tey suñu ko déggee ko mais loolu moo waral ak ANAEC association nationale des auto écoles du Sénégal ñëw fii Ziguinchor ñu waxtaan ak population bi su boobaa élection yi jub si na suñ fi jógee du ñuy demaat feneen bés boo ciy dawal nga ànd ak ak sa xel nga xam ne yow kii nga jàkkaar loolu ak fooyee oto oto kenn du ko foye. parce que heure tout instant mën nga ko foye mu war machine la machine mën na am panne panne bu ñëw mën nga accélérer tëb dem nga nga ni nga ni damay foo damay dem freiné nga freiné doo fekk dara waa ji dem te donc ñaan luñ ko yàlla moo tax defal li la code de la route sant defal li la moniteur auto école yi sant defal li la ANAS sant mooy nga respecté code de la route. yi ñëpp gis nañu premier ñoom ay secours lañu ñëpp gis nañu premier soins yi ñuy def fii en cas d' accident. mom nga fekk légui légui ñom ñong koy expliquer parce que explication yu doy war la ñëw ñep ñong ngi concentrer ci di parce que ñom li ñuy def avant ñu ñëw sax ñong ngi jàngal ak ñong ngi jàngal population bi usager yi ñong ngi jàngal nous bu ñu accident bu nous victime bi ñong ko wara a jàngal lan nga wara def avant peur di ñëw nous, loolu dana a ki nga xamné inconscient